mooy euh, sant yàlla bu baax mais sant aussi les gouvern gouverneurs bi nga xam ne moom mooy gouverneur région de Kédougou sant ay préfet sant ay sous-préfet mais aussi sant ñi ñu naan euh, suñu ay naataango maire ci biir région de Kédougou bi yëpp sant aussi conseil économique social bi nga xam ne suñu bàjjen la Aya euh, Aya Ndiaye kenn ku ne xam ne acteur développement la am liggéey bu am solo boo xam ne mu ngi koy def fii ci biir région de Kédougou def ay at yu bëree bëri. mais sant leen aussi yéen ñi nga xam ne yéen acteur de la presse nga xam ne lépp loo xam ne def nga ko fa mu jëm ci kanam wala mu yegg fenn fii xamal ne seen loxo mu ngi ci kon dañu leen ci sant mais aussi di leen conseiller surtout ngeen desandi ci axe boobu axe bi may wax moom mooy axe que vous demeurez des républicains et quoi qu'il advienne léegi yaa wax léegi ci combat yi ndax combat doorante la wara doon wala sottante xalaat wala ay jëf-jëf yu baax yu développé Sénégal. de toute façon képp koo xam ne président de la république Macky Sall nga ànd ak ak son gouvernement combat bi mu la wax moom mooy liggéeyal pour l' intérêt général créer de la valeur ajoutée mais. président de la république nekkul ci ay combat combat ku ko bëgg da ngay dem arène combat ku ko bëgg da ngay dem catch mais combat bi nga xam ne tey moo ñu ñor lenn moo ñu ñor mooy naka la ñuy def pour que sénégalais ak fu mu mën di nekk ak fu mu mën di jóge mu mën a lekk ba suur mën a naan ba mën di waaye suñu ndaw yi nga xam ne aussi dañoo jàng ba amee di jaas naka la ñuy def pour wutal leen liggéey suñu jigéen ñi nga xam ne ay jàmbaar lañu naka la ñuy def pour jàppale leen ñu mën a moom seen bopp waaye aussi suñu dëkk dëkkaan yi ñi nga xam ne bu njëkk def amoon li ñu naan kumba am ndey kumba am